maa ngi leen di nuyu yéen yëpp euh, di wax ne tey moom dañoo dama leen a bëgg a wan nan la Windows Windows di fonctionner maanaam système d'exploitation bu Windows nan ngeen mën a commencer di ko jëfandikoo daal ci bu ngeen amee ordinateur pour surtout pour débutants yi ñi nga xam ne nii maanaam euh, miinuñu utilisation euh, miinuñu ñu nii jëfandikoo ordinateur ñooñu sax ñooñu moo ñoo tax ma may defar vidéo bi. léegi euh, pour ñu mën a xam euh, Windows euh, bala ñoo commencé dama leen di indil benn histoire ci Windows Windows système d'exploitation Windows nan la nan histoire bi nan la demee daal bu ko defee ngeen gën a xam lan mooy Windows. comme ni ma ko waxee Microsoft moom moo créé moo créé Windows comme ni ngeen gisee noonu Microsoft moo créé Windows quatre-vingt-dix pour cent ci machine yi Windows la ñuy utiliser. waaw quatre vingt dix pour cent ci ordinateurs yi quoi laa bëgg wax Windows li ñuy loolu moo waral importance bi euh, ñu jox ñu jox ko ñu gën ko jox Windows euh, parce que boo xoolee comme ni wax rek àdduna bi yëpp man mën naa wax ne comme ni ñu ko waxee quatre vingt dix pour cent euh, ci ay machines ci ordinateurs yi nekk ci àdduna bi yëpp Windows la ñuy utiliser. te Windows yi day wàcc ci kàllaama yu bari loolu moo tax ci langue yu bari daal moo tax mu gën a mu gën a yaatu gën a accessible ci àdduna bi yëpp. Euh, comme ni ma waxee ni machine bi moom la ñu wàccaale machine yu bees yi lu ci ëpp machine bu bees boo ko jëndee Windows lay wàccaale euh, surtout machine PC yi quoi. Euh, léegi bu dee histoire Windows comme ni may déparé Windows bi ñu njëkk a ñu ngi ko créé ci année 1980 année 1980 ci leen créé premier Windows bi Windows boobu Windows DOS DOS lañ ko doon wooyee DOS DOS Windows la boo xam ne moom daanaka tax ko woon a am. Euh, puissance ak euh, taxu ko woon perfectionné daal noonu laa ko mën a expliquer léegi nag bi ñu ñëwee ba ay côté 2001 ci la Windows nag vraiment soppeeku doon euh, seen d'exploitation bu efficace boo xam ne ni vraiment nit ñi commencé ñëpp commencé nañ ci gis seen bopp utilisation bu gën a yomb ñu commencé ko ci Windows XP mu nga xam Windows XP moom moo génn 2001. Euh, bi ñu jógee ci 2001 bi ñu demee 2007 Microsoft génnewaat benn version lii yëpp ay version la ñu wooyee version Windows Vista Windows Vista mi ngi génn ci 2007 bi ñu demee ba 2009 Vista moom boo gisee moo moo euh, Windows 7 deux ans lan la euh, moo dox seen diggante te loolu mu li ko waral mooy Vista maay Microsoft Microsoft daf ci laaj daal maanaam daf cee. Euh, ni mu ko ni ko tëggee woon moo normal woon lista dafa bari woon ay problème euh, informaticien euh, yi bëri daan kaas ci mi nga xam ne noonu la Microsoft tëggee visa vista boobu du moins loolu moo waral Windows 7 teel a génn ci année bi ñuy wax 2009 bi demee ba 2012 Windows 8 daal di génn Windows 8 moom bu ñu génnee mi ngi génn 2012. moom tamit euh, Windows 8 li ko li tax Microsoft li ñu génneewoon dafa am benn changement bu graaw bu am ci système d' exploitation parce que Windows 8 dafa génn am interface boo xam ne dafa niroog interface yi nekk ci téléphone Android yi téléphone yi smartphone yi wàllu noonu laa ko mën a tuddee nga xam ne maanaam daanaka boo ko dee xool day mel ni euh, genre euh, ni téléphone yi di bindoo di fonctionner seen système d' exploitation loolu la Microsoft copier def ko ci Windows 8 moo tax Windows 8 xaw wuute ak. Windows 7 Windows ak Windows Vista ak XP yëpp. Euh, léegi bu ñu demee ba 2015 nag ci la Windows 10 génn Windows 10 nag moom boo xoolee existence am jusqu'à présent fi mu ne nii am na 4 ans te beneen Windows génnaatugul xam naa Microsoft am na beneen politique bu muy def boo xam ne nii euh, peut-être Windows 10 moom daf ko bëgg a tëgg ba nga xam ne nii parce que Windows 10 moom boo xoolee sori soriwut ak Windows Windows 8 ci benn côté bi mën naa wax ne Windows 8 la bu ñu réfectionné rek. Euh, parce que boo xoolee interface bi ñoo xaw interface yi ñoo xaw daal mais jàppale ne mooy inter mooy version Windows bi nga xam ne euh, actuellement moom mujj génn ci euh, version Microsoft yi loolu daal laa ne mën naa leen expliquer pour ngeen pour ngeen comprendre ko léegi rek ordinateur bu ngeen ko démarré bu ngeen démarré ordinateur loolu sa expliqué naa ko ci vidéo yi passé dafa am lu ñuy wax bureau bureau bi moom moom mooy moom moom mooy li ngeen njëkk a jàkkaarloo bu ngeen def bu ngeen. taalee seen ordinateur ba li ngeen di jàkk jëkk jàkkaar lool euh, mooy loolu moom la ñu wooyee bureau moom moom moom la ñu wooyee bureau par exemple bu ñu ñëwee fii sama euh, mëre di fenêtre mooy bureau bureau moom mooy moo mooy euh, li ngeen di gis nii ni écran bi nii ak li nga xam ne ay icônes laa leen di mën a wooyee icônes yi am na ci yoo xam ne ay application la am na ci yoo xam ay fichier lay représenté wala ay dossier noonu noonu laa ko mën a tuddee quoi yenn ay ay application la léegi euh, léegi bu ñëwee fii euh, bu ñu jógee ci bureau bi ñu ñëw fii ci li ñuy wax application wala programme lu tax ma application application bu ngeen déggee application wala ngeen dégg programme ba jàpp leen ne benn bi la wala même logiciel da nga dégg ñu ne logiciel yooyu yëpp ay ay tur la yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy signifier waaw léegi euh, application yi wala programme yi wala logiciel yi ñu ngi ciy accéder da ngay ñëw ci bouton démarrage bi fii nii. bouton de démarrage boo ko taalee boo boo boo ci bësee ba du moins am na fu mu bind tous les programmes par exemple bu dee Windows 7 ngay utiliser man exemple beneen Windows 7 la léegi euh, boo ñëwee fii boo cliqué ci programme automatiquement da gis programme yëpp génn nga xam ne nga mën a sélectionner waaw tous les programmes da ngay mën da ngay mën a sélectionner programme yi nga xam ne moom nga soxla loolu daal moo lay permettre nga am accès ci programme yi nga xam ne ñu ngi ci ordinateur bi yëpp bu ngeen xoolee man fii nii. actuellement programme yi ngeen si yooyu laa am ci ordinateur bi su ma soo cliqué fi précédent dafay daal di daf lay daal di indiwaat mais boo cliqué tous les programmes mu yóbbuwaat la ci programme yi nga xam moom la ordinateur bi am yëpp euh, loolu lu am solo la pour ngeen xam ko euh, léegi bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci euh, ñu ñëw ci ci fenêtre li ñu woowee fenêtre fenêtre fenêtre dafa am solo trop ci Windows mën naa wax ne Windows. parce que Windows boo xoolee mot anglais la mi ngi signifier fenêtre euh, te loolu xam naa noo bi c'est pas hasard maanaam euh, nekkul loo xam ne nii hasard la parce que li tax ñu euh, fenêtre bi am solo loo gis nekk rek ci Windows ci fenêtre lay lay lay dox loolu expliqué woon loo gis nekk rek ci Windows fenêtre day am fenêtre moo xam application la moo xam fichier la moo xam lu mu mën di doon day am fenêtre. fenêtre boobu moom mooy moo lay permettre ci ngay mën a sukkandiku pour soit ubbi benn fichier wala doxal benn programme kon donc fenêtre moom lu am am solo la ci Windows ngeen jàppee ko nii léegi après mën naa ci gën a ñëw en détail léegi euh, ma bind fii ci page bi ni euh, éteindre ordinateur mooy fay ordinateur nan ñu ko defee parce que ordinateur nekkul ne da boo ko bëggee fay da ngay ñëw rek bés bi mu mu fay non dafa am fooy dem mooy fii nii comme ni ma ko defee capture écran nii. da ngay dem ci bouton de boo ci cliquer xaaral ma ci nii bouton démarrage bi boo cliquer fii arrêté mu arrêté mu arrêté wu bu dee Windows set noonu la quoi am na beneen flèche bu nekk nii boo ci cliquer dafa dafay permettre soit am na lu ñuy wax redémarrer mën nga ko redémarrer redémarrer machine bi man nga changer utilisateur mais yooyu yëpp dinaa ci ñëwaat en détail pour euh, gën leen expliquer parce que yooyu euh, day laajaat. Euh, ñu defaraat ñu ma defaraat yeneen beneen vidéo pour gën leen expliquer la yi yeneen yeneen aspect yi nekk fii quoi léegi daal loolu mooy euh, boo bëggee fay ordinateur noonu ngay def da cliquer fii nga cliquer arrêté et puis ordinateur bi arrêté loolu moom yaa je pense que simple na quoi léegi bu loolu weesoo ñu ñëw ci comme ni bind fichier yi fichier nag moom moom ti dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la ci Windows maanaam waxuma Windows mais ci système d'exploitation bu mën di gis rek ci fichier lay dox Euh, su fichier amul woon rek mën naa wax ni système d' exploitation du am parce que système d' moom ci ay fichier la nekk lay lay lay lay nekk kon nag loolu kon kon nga xam ne fichier lu ama am solo la. léegi nag dama kii dama euh, bind fii ay options yu bari mooy créer maanaam nan la ñuy créer fichier euh, nan lay créer fichier nan la ñuy maanaam renommer maanaam par exemple joxaat ko beneen tur nan la ñuy déplacer fichier nan la ñuy supprimer nan la ñuy defee raccourci. yooyu yëpp ngeen xam ko nag damay ñëw ci benn benn dossier par exemple euh, comme dossier yi ni ma ko bindee fii dossier euh, dossier yi ni ma leen ko expliqué woon ci vidéo yële passé boo demee ci yëpp nekk ci disque bi nii boo fa demee nii fa la dossier yi nekk boo cliqué ci disque dur bi moom moo nekk noonu léegi nee naa leen utilisateur yi nag foofu utilisateur bi nekk ak ay dossier par exemple mën nañu fii utilisateur ordinateur mën na ko utiliser man maa ngi tudd Moustapha benn utilisateur moo fi nekk su ma neexee mën naa ñëw fii sama sama yi sama dossier moo nekk nii par exemple mën naa dem fii ci euh, ma musique ma musique ma cliqué ci gis nga nii mam musique ma cliqué lii ay lenn li ay dossier la bu ngeen gisee nii mu am mu am genre lu mel ne envol xamal ne dossier la su ngeen gisee nii mu nekk simple xamal ne fichier la loolu expliqué woon naa leen ko léegi par exemple imaginons dañu bëggoon a créer benn fichier wala benn dossier da ngay def clic droit da ngay def clic droit nga ñëw fii nouveau boo demee nouveau nga dem dossier automatiquement dafay génne nouveau dossier léegi dossier boobu nag boo bàyyee noonu nouveau dossier lay tudd gis nga ni soo bàyyee nii nouveau dossier lay tudd kon amul sens benn côté loolu moo tax fii mu ne renommé maanaam renommé mooy joxaat ko tur léegi dossier bi par exemple ñu ko bëgg a wooyee euh, da nga ciy demaat da ngay demaat ci dossier bi voilà dossier bi gis nga euh, dossier bu vide la da ngay def da ngay def ci dossier bi. nga cliquer fii option yi bari na mais fi mu bind renommé léegi boo demee par exemple mën nañ ko tuddee test euh, test par exemple dossier bi test voilà gis nga nii léegi kon am nañ dossier boo xam test la euh, noonu lañuy ñuy renommé renommé fichier léegi su la neexee fichier bi mën ko déplacer jële ko fenn euh, bi beneen soit mën nga coup mën ko couper loolu ñaan couper boo defee nii mën nga ko copier tamit yooyu dinaa ñëw. par exemple boo defee nii boo coupé boo coupé kii bi man nga ko euh, mën nga boo coupé fii nii euh, boo boo cliqué ci coupé euh, automatiquement dafay dafay mel ne lu genre lu lu grillé wu nag bu ko defee bu baax mën nga ubbiwaat beneen dossier par exemple mën naa ubbi par exemple image ma ne fii ci image laa ko bëgg laa ko bëgg kii bu ko defee bu baax boo ñëwee nga def clic droit nga def coller boo coller rek automatiquement fichier bi day ñëw fii. wala image ma collé bi ma collé gis donc noonu la affaire bi léegi euh, euh, kon déplacer noonu la supprimer léegi supprimer tamit boo par exemple euh, ñu ñëw fii ci image léegi dossier bi créé nañ ko indi ko ci image léegi dañ ko bëgg léegi supprimer bi tamit da ngay def clic droit am na supprimer mu ngi nii mais lii soo ko supprimer daf lay yóbbu ci fu ñuy wax corbeille corbeille moo nekk nii corbeille moom genre pañe la boo xam ne mbalit mi lay def ñu ko supprimer waaw boo defee nii ko boo boo clic boo supprimer affaire bi gis nga nii mu ne voulez vraiment placer ce dossier dans la corbeille nga ne oui léegi dossier bi mi ngi ci euh, foofu léegi corbeille bii nag soo ko vidé soo defee clic droit mu ne vidé la corbeille dossier boobu noonu da koy perdre à jamais dootoo ko mën a gis. loolu da nga koy da nga koy ñàkk complètement quoi loolu loolu loolu moom da ngeen ci bàyyi xel léegi nag su la neexee man mën nga euh, ubbi corbe bi récupérer dossier bi su nekkee euh, soxla soxlawaan ko loolu tamit euh, aspect la boo xam ne dama koy dama leen koy baaxee pour ngeen xam ko bu baax. léegi buñ ñu jógee ci loolu am na lu ñuy wax kii maanaam créer raccourci par exemple nañ dem créer benn créer benn dossier. Euh, ci musique créer beneen dossier euh, nan dem nouveau dossier euh, ma def par exemple dossier ma def tafa tafa exemple laa leen jox voilà léegi dossier bi dama ko bëgg créer raccourci dama tudd nga defal clic droit parce que option ngi ci clic droit bi clic droit lu am solo la parce que moom moo lay génn option yi boo ci cliquer boo Euh, da ngay dem fu mu bind envoyé vers envoyé vers fii nii boo fa cliqué am na benn flèche bu mu la yóbbu léegi mu ne la euh, fi ñu bind nii première option bi bureau créer un raccourci foofu boo fa cliqué rek nañ retourné na ñëw ci bureau bi automatiquement da gis ne créé nañ fi benn raccourci après tafa raccourci gis nga ni tafa raccourci bi nii léegi soo ci cliqué soo ci cliqué rek automatiquement daf lay indi ci dossier tafa bi nga xam ne fii ma mu nekk ci dossier My Musique ma ma musique comme ni ngeen ko gisee nii donc loolu euh, lu am am solo la tamit bu ngeen xam ko léegi bu loolu weesoo euh, recherche par exemple ñun ñëw fii da ngeen a bëgg recherche benn fichier ci par exemple euh, ma musique dañ ci bëgg recherche benn fichier wala benn dossier da nga ñëw fii ci fii ci bind recherche rek bu nekkoon ne fichier bi fàttali ko nga noom bi par exemple Tafa ma def Tafa. dafa automatiquement bu commencé tàppe rek gis nga ni daf may génne dossier bi nga xam loolu moom euh, recherche la boo xam am am solo la tamit ngeen ngeen bàyyi ko xel pour euh, bu ngeen demoon ba dossier yi bari ci seen loxo wala fichier yi euh, mënatu mooy li nga xam mooy li gën a gaaw pour ngeen retrouver seen fichier wala seen dossier donc je pense que loolu comprendre ko comme ni nga waxee rek affaire lu am importance la il faut ngeen gën cee concentré wu gën cee def ay recherche parce que Euh, peut-être ma euh, comme euh, mën naa fi toog di def vidéo boo xam ne mën na jël sax une heure temps ci fichier te li ma ci bëgg wax lépp jeex loolu moo tax ma ne naa ko def benn résumé rek pour ngeen comprendre aspect aspect fichier. léegi ñu ñëw fi dernièrement li ñu wax copier couper ak coller loolu tamit dafa am solo avant avant copier couper coller mu ñëw ci li ñuy wax barre de menu des applications barre de menu des applications comme ni ma boo gis rek comme ni ma ko waxoon ci fenêtre lay dox. fenêtre boobu noonu day xam lu ñuy wax barre de menu par exemple nañ jël application bi nga xam mu gën a simple ci Windows ñu di ko wooyee bloc note gis nga nii boo xoolee lii la ñu wooyee barre de menu barre de menu gis nga ni mooy bouton yi nii li bouton yi nii ay commande laa leen di wooyee léegi nag application bu nekk ak ay barre de menu bii moom application bu simple la moo tax mu am barre de menu simple yi mais am na application yoo xam ne lu mel ne Microsoft Word ñoo gën a compliqué yooyu boo demee seen barre de menu da nga yu bëree bëri option benn la. loolu la loolu laa bëggee ne expliquer pour ngeen comprendre ko euh, léegi euh, léegi ba euh, barre menu moo nekk nii léegi li ci am solo mooy commande yi ngeen xam ko comme fichier li lay signifié boo ci cliquer édition format yi beneen application bi da fekk ay barre de menu mais yooyu au fur et à mesure ngeen di utiliser ordinateur bi ngeen di gën a xam benn application bu nekk lan lay lan lay lan koy jëfandikoo parce que application bu nekk. ak barre de menu muy fonctionner parce que bokkuñu euh, application yi dañuy wute ci ni ñu doxee daal loolu moom euh, jàpp na nga xam ngeen ko léegi nag euh, xaaral ma ouvert fii bloc note parce que naa ko soxlawaat pour expliquer leen tuuti léegi ñu ñëw ci li may wooye copier ak coller copier coller copier yëpp peut am na ñoo xam ne xam nañ ko mais copier mooy nga noonu wala dossier mën nga copier benn dossier yóbbu ko fenn euh, yóbbu ko feneen ci beneen dossier walla ci beneen euh, yóbbu ko feneen daal maanaam ci wala ci benn clé USB yu demee noonu wala nga copier ko yóbbu ko ci beneen dossier wala ci beneen disque dur wala demee noonu. collé bi tamit mën nga mën nga euh, boo copier boo copier boo copier ba pare wala nga copier li ngay def mooy collé loolu mooy mooy option bi nga xam moom moo tax moom laa mujj bind fii nii par exemple nañ ñëw fii ci bloc note imagine ma benn texte. Euh, xaaral ma bi tamit clavier visuel bi clavier voilà clavier clavier visuel bi ngeen gis ko voilà exactement léegi léegi euh, fii par exemple imaginez dama tàpp fi benn texte rek tàppe lu ma neex léegi euh, boo bëggee copier texte bi nii da def nii sélectionner texte bi après nga def clic droit moo def bu defal la copier. am na raccourci nag par exemple raccourci bi mooy contrôle C contrôle C gis nga contrôle C su ma ko defee moom fii day copier contrôle contrôle C gis nga ni contrôle C voilà léegi bu ma defee C boo ñëwee fii boo neexee nga def clic droit def coller gis boo coller automatiquement day ñëw su la neexee tamit boo defee contrôle. def V gis nga ni automatiquement moom ci dañu contrôle donc moom euh, colle bi ñoom ñooyeen contrôle euh, bu dee coupé coupé moom tamit ñëw par exemple fii lii dama ko lii lépp laa bëgg coupé damay ñëw droit rek def fii bi ñu coupé mu ngi cliqué day def clic droit def collé collé moom mooy euh, contrôle V comme ni ma leen ko gisee. Euh, coupé bi tamit mën nga def contrôle euh, bu dee raccourci bi mën nga def contrôle contrôle def x voilà x gis nga nii moom tamit day coupé voilà bu ko defee contrôle boo defee contrôle V mu daal di collé waat donc loolu lu am am solo loo xam ne dama bëgg tamit ngeen xam ko euh, di ci entraîné wu daal bu ko defee da ngeen gën a mën affaire daal donc daal loolu laa demoon naa ko indi pour ngeen commencer entraîné wu ci ordinateur lii nag moom introduction la rek bu leen jàpp ne ay ex bu ngeen bu ngeen ci euh, maanaam seetaane vidéo bi def ay def ay def ay pratique peut-être maanaam affaire yi danañ ñëw ndànk-ndànk mais ordinateur moom euh, ci mën li ci am ci ay fonctionnalité moom kenn xamul lu mu toll mais mais lii la dafa nekk loo xam ne dama ne naa def introduction rek pour débutants yi surtout ñi nga xam ne ni xëy na mën naa am ordinateur seen xam-xam déwu ci noonu te ñu bëgg a commencer utiliser ordinateur pour Euh, euh, pour satisfaire seeni besoin daal maa ngi leen di jaajëfal bu baax baax na jërëjëf